songo ma pire di ma génnoon nag 17h 18h ndax góor ñu baax ñi heure boobu la wàcc ñibbi seen i kër. wax ji li ko jaral yi góor SRS amee gu waat maa boobu xos nga awa alain dégg boo xam bi soo waxee mu naa la ay bu ma nekkee xale damaa defoon toog mos ta nekk dëgg stress góor ma wax ko de moo la dëgg bopp ma nga xosu xosoos ba mu ba mu set. boo nag bopp day set nag. maa ko gis. di ko ko laaj mu naan man xaw ma lan sekk sa tàgg dana ko yow. est su góor la. boppam baa nga mel ni tefes yow ndax. xam nga laa bëgg nga sangu jóg sangu ba set ñu dem kër gàlle xappi loolu laa gis. wala sax ñu dem kër Rihanna Fall seeti ko borom Medina. ci àdduna jóg. yaa ngi doog sa bopp ay ay ay waay ay waay ay waay tefes yeeg yooyu yëpp dañ ko bàyyi ay waay. aywa lii métti na xaw ma nu may def oto bi lu mu daw xeet naa ko. maa dem sama anniversaire nag bi Ami Gabi. Mhm. jóge Hollande. Mm-hmm. yow daal naka ma wàcc ne cëpp mm-hmm. yow daal anniversaire bi tabaarakaala macha allah ma ñëw ba ci tali bi gis liir bi oto yi naan wii woon rek wii woon rek ma ma geesu xool gauche xool droite ma gis buntu ko jëm Awa Sow fees ne ma moo fa sànni doom. Awa Sow ah yow xamoo Awa Sow bëri bu rafet. eh xamal ñaari Awa Sow lu mu sol. a teg ko nii. sànni ko te ginnaaw oto. seen kër moo jur doom sànni. seen ma ne Awa Sow ma ne Awa Sow la wax pël bu lu mu sol sol. ma nga sol jasineeram. lu mu sol def ko ci tegam. seet nga li ngay wax. xool nga li nga wax déliré woo. vérifié woo gis nga place bi demul. a te ko. muy jooy jooy métti ma ànd ak moom di jooy papa policier bàyyi ko mu ne du ko baax. nooy moytoo awa waxoon naa la ñaari awa sax wala benn. bii bii la non bu ma xool. est-ce ba. awa ba man. awa saw nga fi dugg si sànni sa saak ci suuf. man dama laa laaj ndax ñaata awa saw nga ne ma benn awa saw moo fi am di werante di dóor dënd. dama fi petit data mag. nii na la waaw dangaa biir. yàq doom yi. xam nga tamit boo gëjee di génn. dañ lay kii wala daal ah ngay wax seen nga si yàlla ak yéen <coughs> ki ma gis de ki ma gis xel bati naa moom loolu waaye. waaw ki am na di wax ah. yow monsieur Dikko ji bàyyi ko ëppal nga trop yow. ki ëppalul de dafa tàmm lu bon. nii la nekkee ci dëkk bi. yàq der def périgam fen yi mu tàmm moo tax crop top rek lay sol ak baa foo ko fekk parce que yaram bi mooy tàng. du ko tey waaw. feebar sax yow doo rus amoo gàcce. noonu sama mag ba nekk sii nag. boo demee benn magam nekkul. benn sama mag nekkul voilà sama mag bi ne woon Hollande de. ami du dëgg. yoo xam ne am na moom ñàkk jom kañ ñooy jóg yow kañ nga jóg sa taabu réew yi jógal kii moo ñàkk jom day bëgg a dee te sa xol te sa bouton xot euh, top bi nii yëpp a tijjeeku na nga ko tëjaat. sama xol day étouffé moo tax. dina étouffé li nga wax lépp moo bari. yow amoo gàcc amoo rasu yow. da nga jug génn sama kër. ma bàyyi yow dina ko demee ban Sarika. nga mel eh, eh, ni yow li ñu doyee Sarika. Hmm. xew boo dem bu lekk yëpp def ko sa biir saag bi yow yaa xiif ñun xiifuñu. jërëjëf doo leen ju bàyyi. xool ko ba mën a fen. Ah,